ak Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëye wàllu diplomatie di ñu dégtal diggante Sénégal ak France jëflante gi faw ñu xoolaat ko mu gën a ñoŋ fexe ba Sénégal gis boppam ci googule jëflante doon na lu soxal njiital Pastef Ousmane Sonko mi dalal euh, Jean-Luc Mélenchon njiital France euh, soumise euh, ci googulem ndaje ci université Cheikh Anta Diop la doon amee mu ngi ci yéen a di Walf Quotidien yor yor gi ne li am ba des mooy bëgg nañu Afrique gën a moom boppam ci wàllu jëflante gi Sénégal yi tamit gis boppam ci jëflanteem digganteem ak réewum France ak yeneen réew yi doon lu mu fësal démb moom Ousmane Sonko njiital euh, Pastef yéen kaabi di réew mi quotidien université Cheikh Anta Diop goge fala Jean-Luc euh, Mélenchon newoon Ousmane Sonko moo ko dalal bokk na ci sax euh, njiital Pastef yekk na lu mel ne xeme Emmanuel Macron mu ngi ci yéen kaabi di réew mi quotidien yéen kaabi di 24 heures ne yekk na lu mel ne xeme gis ne ne Emmanuel Macron ci jamono yu tar euh, nguurug Macky Sall doon fitnaal Ousmane Sonko ak partem euh, réewum France ak nam ca taxawee rawatina njiitu réewum France euh, Emmanuel Macron moom ne la Ousmane Sonko gis ne taxawaay ga daanaka dara rafetu ca mu ngi ci yéene kaa bi di 24 heures ci biir yéene kaa bi Thierno Bocoum ma ngay dànkaafu bi fi ne nguur gu bees gi nañ def ndànk te wàcce seen bopp te xam ne yëf yi du yombee noonu ndax nguur la ca ne ak la ngay diggee saay booy dagaan askan wi yéen a bi di euh, le quotidien dañu dégtal euh, ne nganup euh, Emmanuel nganup Mélenchon fii ci réewum Sénégal jot na amal promotion mbirum góor jigéen ca université ba yéen a bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéen a bi di turbine mel ni ku koy déggal ci wàllub mbirum góor jigéen ci réew mi Ousmane Sonko moom dalal na Mélenchon xamal ko ne Sénégal dañ fi xeex mbirum góor jigéen waaye nag terewul Jean-Luc Mélenchon mel na ni kuy dooleel euh, mbirum góor jigéen ndax mu ngi fàttali ne mooy député ngi njëkk a déposé texte ngir fexe ba daganal say diggante ñaar ci ay góor jigéen euh, ci réewum France ak euh, feneen ak feneen mu ngi ci yéen kabi di turbine yéen kabi di les école conférence goge diggante Jean-Luc Mélenchon ak njiital Pastef Ousmane Sonko daanaka am na revanche am ci kaw France moom njiital Pastef ñaawlu na doxalinu Emmanuel Macron ci digganteem ak Sénégal. jàll ci élection présidentielle yi ñu jógee rawatina laata élection yeeg fitna politique yi fi woon Ousmane Sonko fàttali ne du ñu bàyyi mukk seen naataango yu euh, euh, maanaam Sahel bi daañu euh, wéy di jëflanteeg ñoom yéen kaabidi les ko xe lu yeme plainte goo xamante ne yóbbee nañ ko yóbbu nañ ko teg ko ci ndoddu Pape Sané di taskatu xibaar ci groupe Walfadjri ak maître Cheikh Niass mi jiite groupe Walfadjri Abdoulaye Sylla njiital Ecotra moo leen kalaame ci yoon la sabab mbir yéen mooy live goo xamante ne Pape Sané def na ko ci Walf euh, net euh, doon addu ci dossier gu dox ci diggante Ecotra bu Abdoulaye Sylla te mu toll ci euh, téeméeri milliard ak ñeent fuk marché ga mu am ca Diamniadio te dëppoowul ak yoon ci atum 2016 loolee nag la patron bu Ecotra Abdoulaye Sylla gis ne Eh, dara amu ca ba tax na mu kalaame eh, Pape Sané ak Cheikh Niass fu mbaxana doone benn yéen kaabi di eh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal plan gi nga xamante moom la ngur gi di nas jamono ji ngir xeex wàllu mbënd mi ndajeb conseil interministériel jot nañ ko ci amal ca jam ñaajo ñaar fukki poñ ak ñaar yoo xamante ne jàpp nañ ko nguur gi ne bugg ca tënko mun naa indi saafara eh, ci jafe-jafe mbënd waaye nag eh, bëgg nañu gëstu kopar ya woon milliards ya ñu ne moom la nguurug Macky Sall jotoon na dugal ci mbënn mi te mu toll woon ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak fukk juróom-ñaar eh, daañ ko audité daañ ko gëstu Ousmane Sonko moo ni waxee yéen kabi di la mandat mu ngi ñu dégtal lu aju ci li nga xamante ne mooy conférence Sonko xëccoo ndax du jur euh, jafe-jafe ci wàllu euh, politique yéen kaa bi di critique euh, Mara Idrissa Seck mi nga xamante ne booba léegi daanaka kenn déggatu ko ci géeg politique bi gannaaw bu mu ñàkkee élection présidentielle ñu jógee amu ngi ci yéen kaa bi di critique yéen kaa bi di Source mu ngi ñuy dégtal Euh, DG bu SAPCO Souleymane Ndiaye ma fa newoon euh, bëgg a mbir ya fu mbaxana doone benn ndax dafa gis ne dañ ko bëggoon a faat ay fanam daal la ñu bëggoon a lem euh, tax na dossier googule teri ji na ca tribunal yéen a cabinet info mu ñu degtal lu aju ci armateur bi di Alioune Thiam ñaawlu na jafe-jafe ya muy dund ca port lu toll ci juróomi liggéeykat juróomi téeméeri liggéeykat yañu ne mun nañoo dem chômage ndax limbu tako ci bato yamu mu newoon daanaka dañoo am gàllankoor ci Eh, jamono ji yéenekaay bi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal lu aju ci eh, li nga xamante ne eh, narcotrafiquants yi ñay yëngu ci njaayum drogue ak blanchiment d'argent ak bokk na ci xaalis gu jaarul ci yoon ñu bari ci ñoom ci jamono ji ñu ngay dund jafe-jafe yéenekaay bi Eh, douane defati na jéego jot naa teg loxo eh, bu takku ci xaalis gu baaxul buñ ko xayma toll na ci eh, juróom-ñaari milliards ci suñu koppar yéen a bi moo ñu ko yëggee lépp nag jëm ci xeexum xaalis gu bon gii di faux billet yéen a di stade mu ngi ñu dégtal gaynde bu Sénégal Lamine Camara may football ca Metz ci jamono ji galatasarayak ak Juventus ak Chelsea mel ni kenn ku ne maa ngi koy xicco ngir mu mun wuti club yooyu le mu ngi ci yéen abidi stade moom la xëyee dan ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo tënk la woon ci xëtu yéen a kaay jaajëfal Adama